waaw maa ngi nuyoo bu baax a baax di ziar di nuyu waa fans club Baol Médias yëpp dooree ko ci Baye Mangoné Thiam président d'honneur bi jaar ci sunu conseil ku ci mel ni Baye Ahmadou Bari maam Sada ci seen teewaay ni nga xam si noonu la rafete di nuyu nag mboolem personnel bi nga xam si ñoo nekk ci Baol Médias FM yëpp ci rajo Baol Médias FM nuyu mboolem koo xamante ne si yaa ngi ci fans club bi xam ngay góor ngay jigéen ngay mag ngay ndaw Euh, ñuy fàttali tey le mercredi trente 30 septembre 2020 di bis bi nga xamante ne si ci la Baol Média FM doo fans que la Baol Média FM doon amal safaram gi nga xamante ne si maanaam mooy participation ci liggéey bi nga xamante ne si maanaam moo di màggalu Serigne Touba ci lan ko njaal benn woon yaakaar naa xéewal na ko fi na noot wax dëgg yàlla ñu defar fi ay bernde yu am solo de café wax dëgg yàlla doy sëkk nag loolee lépp nag ñu ànd ci ak ki nga xam si maanaam moo di directeur général bi di Serigne Modou Diop Thiat mu accompagné ci ci daal ci li moo di dooleem courage am ak fiitam bi nga xam si moom la nu suñ borom borom boole ak li moo di ay moyenam parce que kenn ku ne xam na ni ñun kese mënuñu dem sans pour autant moom moo mënul dem sans pour autant euh, ñun parce que kenn ku ne xam na ni rajo buy dem auditeurs yi moo tax waaye auditeurs yi buy dem rajo moo tax parce que rajo mooy lem si maanaam moo ni tënk yaakaar naa tey nag nekk na bis boo xamante ne si bis bu ni fàttaliku la ci li nga xamante ne si maanaam moo di sunuy sunuy sunu dund ndax kenn ku ne xam na ni Baol Média FM ba mu sosoo ba suñu jooni tey tey mooy première fois moo def safaram ci fi nga xam si moo di rajo boobu rajo Baol Média FM yaakaar naa nag bu ñu xoolee ci njëlbéen ba suñu jooni tey gars yi ñi ngi taxaw góor ñi ak jigéen ñi ñu accompagner jigéen ñi ak soxna Fatma Ndiaye présidente bi mu ànd ceeg euh, mboolem ñim ci war a àndal ñëpp ñoom benn sekk maam Diarra Mar ak am si maanaam di Alassane Darou Salaam ak ñoom maam Diaw maam Dieng daal ba Baol Média FM daal lii mooy liggéeyam mais nag dafa am loo xam si dees na ko fàttali parce que fan bi muy sosu dafa sosu ci li nga xamante si maanaam moo di ak bëgg rajo bi nga xam moo di rajo Baol Média FM ca rajo Baol Média FM jàppale ñu ci anam bu ci nekk ndax bari na tey man-man yoo xam suñ ko mënee rek rajo bi mooy ñi ñu ko jàppale ndax tey boo xoolee li nga xamante si maanaam ñoo nekk ci a kër gi rek moo xam ngay technicien journaliste wala nga nekk reporter wala nga nekk animateur mbaa nga nekk animatrice ci turu fans bi di turu Baye Mangoné Thiam président d'honneur bi ñu ngi leen ciy jaajëfal bu baax a baax vraiment di am mbégte bu mag a mag nin koy waxal nag fans bi dafa am loo xam si daf ko lii euh, commencement la ci li mu war a liggéey commencement la ci li mu war a liggéey ndax bu ñu xoolee bi nga xam si ñoo ngi formé fans bi mu nekk li moo di 15 mars 2019 2010 2018 mu nekk loo xamante ni si yaakaar naa ni boobu ba suñ joni tey ñoo ngi am doxin woo xam si moom

fàttali nga xamante ne si maanaam lii mooy règlement intérieur bi règlement intérieur bu fekkente ne wàccoo nga ak moom am si maanaam yaa bokk ci liggéey bu fekkente ne wàccoonte ak moom nag am na sart boo xam si moo la cay teg pour nga wàccante sart boobu noonu mooy li am tey daal ci turu uh, fans club bi yëpp nag suñu xool sedd na guy ci acte bi ndax yaakaar naa tey mbàkk yëpp a génn tey bu ñu xoolee matériel mi ngi ci biti boobu ba suñu jooni tey animateurs yaa ngi taxaw kenn ku ne pour bégal li am si moo di fans club bi rek animateurs génn animatrices yi génn kenn ku ne joxe sa parcipation loolu daal mënuñu am loo xam lu gën a rëy loolu kon xam naa ni Euh, dañuy tënkandeegun fii kaddu gi bu ko defee rek di jégalu lépp lu fi des nekk rek ñu xam ne man la wala ñu jàllale kàddu gi ci ñeneen ñi nga xamante ni si maanaam war a jël que ñi fi nekk nag bari na trop mais tey daal jàpp leen ni édition bu la boo xamante ni si Fans Club Baol Média ko def ci yi nga xamante ni si maanaam moom la ko yàlla dénk ñu ànd ci nga xam si moom la ñu PDG jàppale ak waa rajo bi yëpp nag di jaajëfal mboolem personnel bi nekk si rajo parce que ñi ci ba ëpp nañ leen ku ci nekk nga sa participation loolu moom wax dëgg yàlla dañ koy saluer bu baax a baax baax di leen sant bu baax a baax di leen gërëm di jéggalu lépp lu ci dëng man la mais vraiment bëggoonoon mu jub lool li ci des lépp man maa matadi rek waaye ñi nu yónni woon complété woon na kàddu yi ba nu rafetoon lool kon li ci des nanu jàpp ni matadi doomu aadama la waaye wax dëgg yàlla ñi nu yónnoon complété woon na lépp di siyaar ñëpp di balu ñëpp di balaan ñëpp wasalaamaaleykum Thank